di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey baalu àq ñëpp ci weeru koor bi ñu dugg di baal ñëpp àq di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal tey ñaan yàlla mu may ñu woor ko ci jàmm. den yëgal aussi que ci biir weeru koor gi dina am benn conférencier bu ñuy woowee sëriñ Abdou Lahad Aw dinañu faral di defal ay waxtaan jëmale ko ci koor ak ci ki nga xamante ni moo tax ñu bind ñu di gën gi mbindeef muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ñi ngi dellu di ziaraat ñëpp bu baax di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi topp suñuy video te diñ ci encourage alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo analyse ci seen série maîtresse d'un nom marié ginnaaw bañ seetaanee épisode 29 ba pare ñu amoon quelque point yu ñu noté woon bëggoon ci def taxaw seetlu def ci ay jàngat ak yéen point bi ci njëkk mooy liggéeyante bi nga xam ne moo am ci diggante wujj ak moroom ma wala maanaam en général ci biir néegu sëy parce que des fois da ngay gis soxna su takk jëkkëram ba nga xam ne lu mu ko wax rek lay def parfois aussi tamit da ngay gis nit ñu takkal la wujj wujj bi maanaam day ñëw ñi ma sëy di def lu ne aaw bi wala maanaam aaw bi moom ñu ni ko dañ lay takkal wujj mu commencé jóg def le tout ba sëy bi du am yu mel noonu donc dañu gis ni sëriñtu dafa bëri trop ci biir néegu sëy ci diggante wujj ak moroom ma donc loolu day wane ni am na ci ñoo xam ni si nii bon gëm nañ yàlla mais dañ ko desee wóolu et je me demande est-ce gëm nañ yàlla parce que yàlla sunu borom boo ko gëmee yenn yi doo ko def tey dañuy faral di wax ni wujje bokk wërsëg la ndab li nga xam ni da ko bokk ak sa morom ngallaawaay jëlal sa wàll bàyyi ko ak wàllam mais bëgg jël benn góor rek ñi doo ko bokk ak kenn yow kese. alors que tey góor googu noonu diine may na ko mu am ba ñeenti soxna franchement loolu lu jar xoolaat la et man je me demande sax est-ce que jar na ko donc franchement man je pense que ni jaru ko parce que tey ki nga xamante ni si dafa ñëw fekk si la boo ko jëlee def ko comme sa raq nga mën a bokk ak moom kër gi ngeen mën a dund ci jàmm seen kër dina neex lépp lu ngeen di tarbu ci seen jëkkër di ko am te yow mi nga xamante ni aussi tamit yaa fekki boo demee tamit nga jël ka nga fa fekk nga def ko comme sa mag ngeen mën a dund ci jàmm parce que quoi qu'on puisse dire tamit <laughs> ngeen baal ma de mais am na ci ñaareel yoo xamante ne ci ñi ma ko war a wax dañoo sikk lool dañuy ñëw ci kër gi fekk fi jàmm ñëw ruube lépp jaxase lépp am na tamit des fois problème yi ci aawo lay jóge mais parfois aussi tamit ci ñaari li lay jógee ngeen jégal mu bu baax ci kàddu bi ci ñi nga xam ne war naa leen ko wax mais am na aawo yoo xamante ni seen souci mooy seen jëkkër bu takkee beneen femme affection bi mu amoon ci ñoom day wàññeeku ni leen doon toppatoowee dootu ko defeeti noonu et là aussi tamit lu jaral a leeral la jot naa ci benn message démb boo xamante ni ci loolu lay wax donc ñu bàyyi leen ngeen déglu message boobu ñu dikkaat continuer yeneen point yi nga xam te ne mënuñu indil tey. asalaamaaleykum. waaw man dama bëggoon euh, joxe sama contribution ci série bi parce que dama koy suivre depuis de début mais man euh, li ma gis ci euh, épisode bi li nga xamante ni moom la ñuy commentaire moo di en fait wàllu polygamie je pense que ni ñi ko waral leeral dañ ko leeralul nu mu war a taxawee parce que nit ñi dañ naan góor ñi am nañu droit ba ci ñeenti jabar loolu dëgg la waaye itam dafa am charte yoo xamante ni moom la Guinée tëral pour mu mën a jaar pour mu mën a ko tuddee euh, polygamie mais charte yooyu dama gis ni euh, sunu càmmiñ yu bari dañ koy jalgati ni ko diine tëralee duñ ko defee noonu damay joxe benn exemple rek da gis góor takk jab amee jabaram sëy ak moom peut-être 40 ans nekk ak moom ci condition yu metti daal di wuti beneen soxna. ñëw mettre ko ci condition yu nga xamante ni tegu ko defulu ko jabaram bi mu nekkaloon tabax kër dugal ko ca kenn nekk ci dans des conditions yu difficiles ak njabootam je pense que ni loolu tamit il faut que suñu kilifa diine yi imaam yi nit ñi xaw ñu leeral tuuti waaw leeral ni nga xamante ni moom la war a tëddee charte yi ba góor ñi di ko respecté comme ni ko diine santaane parce que tamit yenn yi tooñ sa borom la tooñ sa soxna la waaye li jiitu mooy tooñ sa borom te loolu tamit war nañ ko leeral bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ndax euh, soxna yu bëri ñu ngi ciy souffrir souffrance euh, morale souffrance physique souffrance dem ba mari dem si sa biir kër sa xaw tasaaroo sa njaboot parce que day répercuté wu partout ci say doom seeni étude seeni kii te yooyu yëpp je pense que ni ñàkk leerlu da daal euh, góor ñi daal il faut que ñu leeral leen leen quand même charte yi ak ni mu war a tëddee waaw parce que yu ci bëri tamit ay mbetteel la waaw am na lu ñu teg da nga war a yëglu sa jabar wax ko ko waxanteeg moom te yooyu yëpp du ci am waaw man daal lii mooy sama xalaat jërë ngeen jëf. donc jigéen ñu bari lii moom mooy seen souci mais tamit dëgg la. parce que tey l'islam dafa wax pour ñu yemale ñu tolloole mais am na si ñoo xamante ne mënuñu ko bu ñu amee ñaari soxna dañuy xaw a jéng ci benn côté bi donc baax na ñi nga xamante ne si ñoo war a leeral loolu donte sax ñu ngi koy leeral mooy ñu gën ko leeral parce que tamit am na ñoo xamante ni xëy na xamuñu ko wala tamit même bu ñu ko xamee dañuy def lu leen neex am na ñoo xam ne carrément bu ñu amee ñaari soxna dañuy jéng donc gannaaw bu ñu jógee ci point boobu point bi ci topp mooy xeebaate ñu gis ko ci diggante yaayu rakk ak Moustapha bi mu ko woowee naan ko juraluma la jabar c'est parce que daf ko xeeb ci biir wax bi sax mi ngi naan ko yow mason ngay liggéey salaire rakki moo ëpp sa bos et mu doon loo xamante ni benn phénomène bëri na ci dëkk bi mais ça me fait très mal parce que ana nit nan la mën a tiime moroom nitam di ko xeeb xanaa kooku di xeebaate xalaatul ni moom sunu borom moom mooy maye te mooy xañe mën na la may tey suba mu nangu lépp comme mën na la xañ tey suba bu may lu lu bëri te nit ki bu doon may boppam kenn du ko ëppale comme nag suñu borom mooy maye te yamalewut kon kenn ku ne war nga jël sa moroom nga def ko ni sa bopp donc point boobu noonu duñ ci yàgg trop vu que waxoon nañ ci ci sunu vidéo yi weesu mais xeebaate dafa doon loo xam te ni si nit ku ne war nga ko moytu te xam ne ñun ñëpp ñoo yam situation yi nag mën na wuute parce que borom bi mën na may ñii lu bari may ñii lu tuuti ñii bañ leen a may dara mais ñun si suñu biir ñoo war a dimbalante di jàppalante suñu biir mais bu ñu demee bay xeebaate parce que kii am na lii wala kii lii la dans ce cas mënatuñ suñu bopp ay nit parce que nit dafa war di jàppale moroomam. képp koo xam ne aussi tamit am nga ci xalaat après comme d'habitude mën ngeen ko def ci commentaire yi wala ngeen envoyé ñu ko par message vocal. point bi nga xam ne moom la ñuy mooy parfois nit loo xam ni. gënul ci moom comme bu ñu ko xoolee ci diggante Cheikh ak mariam depuis lors Marème mi ngi topp Cheikh naa ko takk ma Cheikh aussi topp na bëgg-bëggam ba dem takk mariam alors tey bu ngeen gisee Cheikh ni muy dunde ngeen xool tamit Marème ni muy dunde on dirait que tey sëy bi ñoom ñu def gënul ci ñoom loolu mooy waral ne nit parfois di nga topp ci dara di ko bëgg lool di koy yóot ba jot ko te fekk doo ko jariñoo moo tax a chaque fois bu ñu bëggee dara nañuy ñaan sunu borom mu may ñu ko su fekkee moo gën ci ñun parce que bu gënul ci ñun rek buñ ko amee duñ ko jariñoo gis ngeen fi nit di def examen bëgg ko lool yàlla dogal mu am ko dem sorti jaare fa lab ñàkk bakkanam nit annoncé nañ ko examen nii ñu woo ko mu dégg turam kontaan ndaw di jéggi tali oto fël ko mu jaare fa ñàkk bakkanam donc nit ki à chaque fois soo amee looy bëgg dee ko ñaan sunu borom su fekkente ni moo gën ci yow mu defal la ko donc tey loolu moo nekkoon débat bi maintenant question bi nga xam te ne moom lañ leen bëggoon a posé mooy gis nañ ci fin épisode bi fi Marème demee ci hôpital bi ni day seeti Lalla ñu leen di laaj ñu ngeen jàngate lool est-ce que Marème war na dem seeti Lalla ak tamit bu duggee ci hôpital bi fekk ko fa à votre avis lan moo nar a xew foofu noonu donc képp koo xam ne am nga ci xalaat rek